dugal seen loxo euh, ci euh, euh, liggéeyug Touba ca kanam je pense que Fati occasion la pour ñu am yu ñu président Abdou Fattah expliqué. Mhm. ci Touba ca kanam. voilà sëñ sëñ Sonia bu ñu ngi lay jaajëfal bu baax ndooy waxtaan bi am na solo sëñ Abdou Fattah Gueye maa ngi lay nuyu di la mhm. ziar di am mbégte di jàkkaarloo waat ak yow cinq éléments bi jàll gis nañu quelques réalisations du yëpp ndax ak léegi. yàgg na yàggul li ngeen fi def ci liggéey bari na ñun ñi fa nekkoon au début gis nañu bu baax euh, yenn gox yi ni mu am xar kanam yi ni mu soppeekoo mais euh, lan moo tax ngeen tànn ponk yi nga xam ne moom ngeen tànn parce que du euh, lii rek moo fa am ku ne nag xam na ne sëriñ bi cër bi mu joxoon alxuraan cër bi mu jox xam-xam amaana loolu moo tax ngeen taxaw ci daara yi lu jëm ci wàllu wér yaram également yéen ci def ay jéego peut-être ñu def ko par benn pàcc benn pàcc tàmbalee ci éducation lan ngeen jot def jusqu'à présent fan ngeen ci na ma yegg. jërëjëf euh, soxna Faty jërëjëf Serigne Souhaïbou waxtaan wi am na solo lool lool sax euh, bari na lool loo xam ne laytaayal na ko ci li tax ñu daje fi tey tey dañoo daje dañoo ñëw fii ci TFM ngir fas yéene leeral liggéeyu Touba ca kanam faram fàcce ko. ci biir kàddu yi sëñ Souhaïbou bi muy daaneel wax na ne sëriñ bi bi muy nekk Touba bi muy dëkk Touba bi muy doog a sanc Touba dëkkoon fa nose woon na ko noo xam ne bant boo sécurité boo ko bëggee doo ko mën a am loolu aw nosin la moom lañuy wax organisation sëñ Souhaïbou bu leeral na Touba ca kanam li ko li ko li ko jur fan la bawoo Touba ca kanam xaw ngaa mën a wax ne dafa juddu 1888. tolloog 1306 ci at gàddaay gi mooy at mi nga xam ne ci la sëriñ bi sanc Touba booba la Touba ca kanam juddu ndax booba rek la taalibe yi takkatoo ci ndigaleel sëriñ bi di xëy ak a gont ci luy jëmale Touba ca kanam kon ci organisation boobu ci la Touba ca kanam taxaw tey jii ginnaaw bi nga xamee ne li ko lal ak ci li nga xam ne ci la juddu di ci dox ba agsi fii génnut pas-pas ak liggéeyal sëriñ bi te yàlla rek tax kon bu ñu euh, ñëwee nag ci li nga xam ne moom la Touba kanam di def balaa ñu ciy agsi dañuy njëkk a leeral Touba kanam naka la tëddee li ñuy wax structuration naka la bindoo ndax sëriñ bi mbiram yëpp da koo nosee mu tegu ci organisation te ginnaaw Touba ca kanam dafa ñëw ci waxtu woo xam ne dafa am lu jamono laaj ci wàllu doxalin bu ci bëggee teg ay tànkam fas yéene dox liggéeyal sëriñ bi. faaw li jamono indi te ñu mën koo jëfandikoo te muy loo xam ne lislaam aayewu ko war nañ cee mën a jaar ba organisation bi ñuy teg doon bu mën a dëgër ba mën a sax Touba ca kanam nag ci ron xilaafa gi lay nekk ron xalifa général de mourides ci la nekk moo koy jox ndigal muy def moo koy tere muy bàyyi moom képp tamit mooy kilifa ak Touba kanam kon Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te wér moom mooy jëwriñ mooy kilifa ak kanam moo ko moom mu jël sëriñ Abibulahi Mbàkke moom sëriñ Fàllu def ko ci biir Touba ca kanam mu nekkal ko fa sëriñ euh, sëriñ euh, Abibu ànd ak sëriñ Abdoulahat ci liggéey boobu mu di ko ci dimbali ginnaaw ñoom nag Touba kanam dafa mbooloo mu bari mu ci nekk mu ñuy wooye assemblée général ñooñu exercice walla période bu nekk ñooy tànn am mbooloo tudde leen comité directeur comité directeur boobu 51 membre ñoo koy composé am ci ñoom fukk ak ñett ñoo xam ne bitim réew la ñu féete am na ay soxna yu nekk ci seen biir comité directeur boobu bu ñu leen falee ba noppi ñoo wëlbatu ko tànnaat la ñuy woowee bureau exécutif ci la président di nekk ak i adjoint am secrétaire général ci lay nekk ak i adjoint am trésorier général ci lay nekk ak i adjoint ñooñu ñooy bureau exécutif bi waaye defaat ci seen ron fukki commission ak ñeent ñi nga xam ne ñooy taawu liggéey bi loolu yëpp dafay delluwaat ci organisation bi nga xam ne bépp murit bu yëkkati sa ñaari téeméer di ko jox Touba ca kanam war na laa leer naka nan la Touba ca kanam organisé ba sa xel man cee dal fukki commission yooyu ak ñeent bi ci njëkk mooy commission administrative lépp lu jëm ci wàllu administration ñoo koy saytu bind bataaxal ak yu ni mel am na commission scientifique et culturelle lépp lu jëm ci xam-xam ak yar ci ci lislaam ñoom ñoo koy saytu lii ñu war a waxtaane léegi ci wàllu daara yi ñoom ñooy yor boobu liggéey am na commission santé lépp lu Touba ca kanam di yëngu ci wàllu wér yaram ñoom ñoo koy saytu am na commission réalisation li jëm ci wàllu infrastructure yi commission réalisation ñoo koy ñoo koy taxaw am nañu commission environnement am nañu euh, commission communication nga xam ne ñun ñi ñëw fii tey jii commission communication moo ñu fi yebal am na commission massification ci yaatal liggéey bi ba fu ab bi mën a nekk ci àdduna bi man cee jot am nañu commission sociale ci dimbalante muy commission yu am solo boo xam ne bu ci nekk li muy liggéey dana ci ñëw ci yaatal ndax tey dañoo bëgg képp ku ñuy seetaan xam dëgg dëgg Touba ca kanam naka lay doxee ak dëgg dëgg Touba ca kanam fan la teg tànkam ba mën a def lii muy def nii ba àdduna bi yëpp di ko bàyyi xel. am na commission logistique jumtuwaayu Touba ca kanam yëpp ñoom ñoo koy saytu am nañ tamit commission boo xam ne mboolem soxnay Touba ca kanam yi la boot ñu koy wax féminine. am nañu beneen commission boo xam ne li ko tax a jóg mooy mbooloo moo gis ñuy dox léeg-léeg ñu dox ba mu yàgg am ak wuuteeg gu xew ci seen biir. am ay juyoo yu am am na commission boo xam ne loolu rek lay liggéey liggéey ci biir Touba ca kanam ñu koy woowee discipline yoraale tamit programme yi nga xam ne mooy dox ci biir liggéey bi am nañ chargé de la diaspora ñoo xam ne mbokki taalibe yi nekk ci diaspora bi ñoo leen di lijjanti di leen saytu kenn ku nekk dëkk ba nga nekk ñu fexe ba Touba kanam di fa dox fexe ba sa àddee mën a agsi ci Touba kanam am nañ commission organisation organiser événement yi jeexale nag ci bureau d'étude boo xam ne lépp lu jëm ci wàllu étude technique ñoom ñoo koy def am nañ aussi commissaire aux am nañ inspection et vérification loolu mooy organisation bi nga xam ne ci la Touba ca kanam reposé wu pour mën a def réalisation yi ngeen bës gis mu koy def ak nosin yi nga xam ne moom la nosoo bu ñu demee nag ci li nga xam ne moom nga laaj jëm ci daaray alquran yi wala ci am njàng bokkoon xay na ci tuubaa ak li ci Touba ca kanam di def danaa la wax juróom-ñeenti mbir yoo xam ne Touba ca kanam mi ngi koy jàppee ci am njàng xam-xam ci tuubaa ginnaaw bi seetloo ne. Euh, dëkk bii di Touba sëriñ bi daa ñaanoon mu doon faw dëkkub xam-xam ni ko sëriñ Cham bu waxee léegi waj'alhu ban maskana ta'allumi wa mawdi'al fikrati wa mi mu doon faw rek ba faw pour toujours day nekk dëkk boo xam ne dëkkub xam-xam lay doon dëkk boo xam ne dëkkub science lay doon loolu moo tax boo dee liggéeyal sëriñ bi ci Touba li nga war a njëkk a jiital mooy lu jëm ci wàllu xam-xam moo tax Touba ca kanam tàmbali. dugal loxoom ci njàngaleem alquran ndax booy wax xam-xamu diine ci ndaw ñi jàng al jàng alquran moo ci jiitu mooy cëslaay yi boo ko jàngee ba noppi loo ciy teg doo ko caa teg. Touba ca kanam nag gis ne Touba daara yi bari nañ lool dong ngay fay jànge tamit bari nañ lool macha allah te day yokk jamono bu nekk ndax 2017 recensement yi ci defoon tolloon na ci 1524 daara boo koy xool léegi boobaak léegi war naa dem 2000. liñ xayma woon ci ay dongo yu fa nekkoon matoon na 127000 jàpp naa ne léegi fii ci recensement yi nga xam ne ñi yor daara yi ñu ngi koy def ci période bi bu noppee mën naa dem 150000 wala plus de 150000 nekk euh, téeméer ak juróom fukki junni yi donga lim bu toll noonu bu amee faw ab taxawaay bu wóor moo moo ko mën a encadrer jàppale leen ba liñ ci bokk bëgg ñun ñëpp ñu ko ñu ko cay gën a am donte résultat ya ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay ma ngay jolli. ñëpp di ci teg seen bët àdduna bépp man koy seede te résultat yi yu mujjee génn fan yi firndeel la loolu te danañ ci ñëwaat ci biir loolu nag Touba ca kanam am juróom-ñeenti tomb yoo xam ne juróom-ñeenti mbir yoo xam ne mi ngi koy jàppee ci biir bu doon ay projet wala ay programme noonu lañ ko mën a tuddee bi ci njëkk ma di ko wax mooy lu jëm ci wàllu formation bépp métier boo xam ne nit da koy def te bëgg ci ndam loo jàpp ne jàpp ne mën nga ko dafa laaj nga tàggatu ci yokk ci xam-xam ndax loolu day tax liñ nga ciy def résultat bi gën a bari day tax defin wa gën a gaaw day tax taxit sab a gën caa néew loolu moo tax Touba ca kanam bi mu jógee di jëm ci daara mu nekkoon kon jàngalekati alquran yi nañu leen jàppale tàggat leen dolli leen xam-xam ba li ñuy def ñu gën koo jekku ci la ñu tërale benn programme boo xam ne scientifique et culturel ñoo koy taxaw fas yéene tànn ci biir borom xam-xam yi ñoo xam ne seen xam-xam na jëm ci wàllu gestion te mooy idaara naka la ñuy gérer daara ñoo xam ne seen xam-xam màcc na jëm ci wàllu xam nit xam gone xaw ma sociologie lañ koy wax wala la ko arab di wax ñoo xam ne seen xam-xam dafa màcc jëm ci wàllu euh, turuxu tahfiis mooy euh, wàllu pédagogie am ñoo xam ne seen xam dafa màcc jëm ci wàllu tajwid ndax alxuraan dafa am nuñ koy jànge dafa am aw yoon wuñ koy jànge ñu dajale ñooñu waajal leen ay jumtuwaay yoo xam ne moom la ñuy jàngale ñoo ngi sant bu baax a baax école al azhar bi nekk ci yoonu garage Daaru Muxti nga xam ne Cheikh Mouhamadul Moutala yaa ñu ko yàlla fayal moom moo ko sancoon ñoom ñoo ñuy abal ay salle de classe sëñ daara yi foofu la ñuy dajee dañuy jàpp journée def inscrire nga xam ne at mi dina ci def ñetti saison saison bu nekk ñu jël ci luy tolloog téeméeri euh, sëñ daara tàggat leen ba nga xam ne bu ñu fa jógee kenn ku nekk ñoom da nga yëg ne li nga doon def gën nga koo jekku léegi te ses résultats yokku na bokk na ci firnde ji sëñ Mamor léegi mi ngi koy wax mi jiite scientifique ci vidéo bi ki nga xam ne moo jël première ci concours Sénico bi ren sëriñ daara bi ko jàngal bokk na ci ñi Touba ca kanam doon formé euh, ci biir loolu nag formation yooyu liñ ci defagum liñ ci jàppalee jàppaleegoon forme leen ci ay sëriñ daal toll na ci cent 540 yoo xam ne formé nañ leen tey jii ba nga xam ne am na xam-xam bu wér ci xeeti xam-xam yii ci xam nañ la ñuy yore daara organiser daara ji ba mu tegu ci yoon ndax léeg-léeg da dem ci daara joo xam ne dangay fekk mu taq. donga ya mel nu leen neex waaye léeg nga dem fekk daara joo xam ne dañ koo organiser xaaj donga yi ñi ñoo yor mbale mi ñi yor lii ñi ñoo yor lii ba daara ji seet wecc nosu lépp tegu ci yoon waaye da nga gis koo xam ne léeg-léeg xëy na jàmbaar la lool ci jàngale waaye mën naa yor ab dongab daara mu def ci moom at yu baree baree bari la ñu bëgg ci moom moom mu bëgg ko ay waajuram bëgg ko du ko ci am te fekk xëy na yoon wu gàtt am na woo xam ne bu ko xamoon dana gën a jege nit ki nga xamee ne bépp métier bu ci nit ki defee formation jaar ci xam mën naa gën a jàpp ni ci moom loolu mooy tomb bu njëkk bi ñaareelu tomb bi mi ngi jëm ci jàppalante daara yi ci ay euh, ci jumtuwaay yi nga xam ne mënuñ koo ñàkk ngir li ñu bëgg ñu man koo am bokk na ci yooyu li ci gën a siiw mooy mbaar mu dongay toog di jàng xam ngeen ne daara yi donga yi li ci ëpp ay mbaar lañ leen di defar rek defar ko ba mu baax ñu toog ci biir di jàng Touba ca kanam li mu jàppalante ci ay daara yoo xam ne ñii defar nañ leen mbaar ñii ñu defaral leen ay toilettes ñii ñu defaral leen néeg wala mur de clôture wala yu ni mel loolu na ci 158 daara mbaar yi nga xam ne moo ëpp yu ñu ciy defar nag yi ci ëpp day nekk 8 mètres sur ñu defar ko ay ay ay jaar yoon yoo xam ne biir suuf gi du tàng te donga bi dana ci mën a toog nekk ci jàmm sëriñam di ko jàngal muy jàng di am résultat boo demee ci euh, ba tey ci wàllu njàng mi ñetteelu tomb bi mi ngi jëm ci samp ay daara ba tey ndax gis nañ ne. Euh, Touba jànguwaay bari na lool waaye doyut ndax yàlla dogal na muy dëkk bu rëy di dëkk buy màgg te màggaay bi gaaw lool euh, lafa nekk ci ay ndaw yoo xam ne soxla nañ ku leen taxaw ci njàng di lim bu baree bari boo xam ne ñëpp mën nañ ciy dugal seen loxo ndax soxla na ñëpp ba tax Touba ca kanam ne xalaat na ne na tàmbali di taxawal ay daara daara daaray modèle wala daaray tànneef yoo xam ne ñëpp a koy bokk di ko def ci koñ yi. ñu tànn ci ñu tàmbali ci ñeenti daara yoo xam ne benn bi nopp na daara ji bu noppee dañuy wut ci koñ bi wala ca fañ ko samp ab jàngalekat wala ay jàngalekat ñu dëkk ca koñ ba di fa jàng si di xëy di ñëw di jàng bu añ jotee ñu dem ñibbi añi bu ngoon jotee ñu gont jàng si bu wàcc jotee ñu wàcc dem ñibbi daara ju nekk xaymaal nañ ne téeméeri donga war a jël te bu mënee nekk juróom fukki góor la ñuy doon juróom fukki jigéen lañuy doon loolu mooy ñeenteelu euh, tomb bi jëm ci wàllu ñetteelu tomb bi jëm ci wàllu daara ñeenteelu tomb bi mi ngi jëm ci ba tey lu jëm ci wàllu assainissement ndax xam nañ ne Touba réseau assainissement eau pluviale taxul mu yaatu fa lool am na liggéey bu fa ONAS di def wante def na lu baree bari ba tax na ay fosse septique moo fa am loolu nag daara yi dañ ciy sonn tax Touba ca kanam fàggu benn camion vidange boo xam ne daara ju bëgg da ngay bindu joxe benn somme bu tuuti ngir barkeeloo ko ci 10 000 francs lay doon. ca fi ngay fay 10 000 francs normalement 35 000 nga fa waroon a fay bu fekkonte ne da dem ci euh, camion vidange normal yi ñu ñëw videel la camion boobu lu mu néew néew weer wi dina def 90 rotation weer wu nekk pour videel daara yi juróomeelu tomb bi mi ngi jëm ci ndabul daara projet bi nga xam ne Touba ca kanam am na ko ba nga xam ne fi mu ne nii génnee nañ xaalis pour jënd 1000 bool lan lañ ci jublu donc daara bi nga xam ne koñ bi mu nekk li ko wër ci kër bu ko kenn ku ne tibbaloon lu lu suur ñaari gone bu boobaa du jar daara ji kenn di yelwaani wala ñuy génn di dagg seenum njàng di wuti lu ñu lekk ñu ne nañu fexe ba sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom jël ay bool jox leen symboliquement kenn ku nekk mën a bindu ne jël naa bool bu mën a def nangam heure bu ma tibbee añ wala reer wala ndekki danaa tibbal daara ji a gën a jege programme boobu Touba ca kanam teg na ko jënd na bool yi ànd nañ ko ak ndeyu daara yi actuellement ñu ngi ci recensement yi pour tàmbali liggéey boobu jëm ci ba tey jàppale daara yi at mu jot dinañ organiser ay conférence conférence boo xam ne benn bi ci wàllu juridiction lay jëm juridique bu ko defee ndax sëriñ daara yi gën a comprendre loi wu réew mi naka la tëddee ci diggante ni ñuy yore daara ak jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy am beneen bi ci def jëm ci wàllu santé nga xam ne dañuy invité ab juriste mu ñëw toog di leeral sëñ daara yi gan wet lañu war a mën a jaare ba mucc ci luwaay yi nga xam ne mooy dox ci réew mi ba duñ am leen teeg moom donte du lu yomb ndax li ëpp ci ni daara yi doxee ak ni loi yi doxee c'est diamétralement opposé dañoo wanante ginnaaw waaye te teewul mbir mu nekk xam nga dafa gën ñàkk nga xam ndax boo ko xamee moo lay dimbali ba nga xam foo ciy teg sa tànk euh, loolu moo tax ñuy organiser ay conférence yoo xam ne dafa jëm ci wàllu yoon loi yi ak nu ñuy def ba sëñ daara xam ko naka noonu tamit lu jëm ci wàllu santé wér yaram ndax daara ku ko wax wax santé loolu moo tax dañuy organiser ay conférence yoo xam ne da leen di dimbali ci wet googu ci biir loolu am nañ projet mooy juróom-ñaareel bi jëm ci daara te mooy am benn pôle d'avocat boo xam ne li leen di tax a jóg mooy taxawu daara ak ñooñ daara fi ne nii jamono ji ñuy waxee wax nañ ne luy tolloo fukki sëriñ daara ak juróom yu ñu xam ñu ngi ci biir kaso yi te li leen ci yóbbu mën naa am euh, xëy na nattu suñ borom la rek ndax ab jaam mënta mucc ci nattu waaye amoon ay avocat yu yu lay taxawu yuy taxawu ku mu doon ku ne bëgg nga ko ndax lislaam li mu santaane mooy dimbali sa mbokk bu tooñee ak buñ ko tooñee te ki mën a dimbali ki gën a mën a dimbali mbokk muñ tooñ wala ba tooñee mooy ab avocat ndax moo gën a xam lu waay réew mi moo gën a xam lu fi dox loolu moo tax Touba ca kanam bokk ci ay projet am benn pôle d' avocat ne am na ay avocat yoo xam ne bindu nañ ci joxe nañ ci seen seen kàddu ngir fas yéen ànd ak Touba ca ci loolu bi ci toppaat mooy mutuelle mutuelle de santé boo xam ne daara yee koy moom projet boobu mi ngi en cours ñi ngi ciy ànd ak sëñ Abdoulaye bi ma ci mujj a jeexal nag tam jëm ba tey ci wàllu xam-xam mooy complexe universitaire bu mag bii nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Mountakha taxawal te lu mat juróom-benn fukki bâtiment ak juróom-benn ak juróom-ñett 68 bâtiment ñu war ko fa amal Touba Ca Kanam jël ci benn boo xam ne surface bâti bi toll na ci 622 mètres carrés nekk R plus 3 nga xam ne liggéey ba noppi na fi mu ne ña ngay monté fenêtre ya fenêtre sax defe naa monté ko ba pare liggéey ba moom noppi na ba kon li ci des mooy def ci équipement yi nga xam ne moom la ñu war a jànge jël caabi yi jébal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha lii ci tënk. mooy li nga xam ne moom la Touba ca kanam di duggee ci njàng mi nga xam ne moo am Touba boo ko doon estimer coût global bi dina mat un milliard cent vingt million soxna Faati.